ci jërë ngeen jëf confédération nationale des employeurs du Sénégal njiitam di Adama moom la l'observateur xëy dalal ci waxtaan entreprise réew mi ak jafe-jafe yu ñu dund moom la ñuy waxtaane Adama Lam nee na ci waxtaano entreprise yu bari ci réew ak entrepreneur yu bari ci réew mi coowal fisc dafa yóbbu seenum xel mu dellu ci ne toog di wax entreprise yuy fay fisc ak yu ko dul fay loolee kasaawa kasaawa la Adama Lam gis nañ ne entreprise yu bari ci réew mi ak jafe-jafe yu ñu dund ay jafe-jafe la yoo xam ne saafara si ko war a faj waru taxaar te mun taxaar ndax situation la boobu bu ñu ci taxawul ba rek la ko ñu bari mën nañ fay doxe ñàkk seenub liggéey liggéeykat ya ci RTS ñoom ak seen directeur général ba journal lay foo gis na ne ab defante ma ngay xeeñ ci diggante ba foofee ci RTS di rajo télé Sénégal public yéen a bi bind nañu mooy accord d'entreprise ga fa Racine defoon bàyyi fa mars moom la Pape Alé Niang annulé ndax nee bu ñu ko jëfee ci RTS dafay mitti ca kër ga collège des délégués bu RTS yi ne duñu ko dégg li xeex ba teg ci loxo muy ay ak yi duñu seetaan kan di leen ko xañ Mame Moussa Niang mi coordonnateur délégué yu RTS yi di ñu wax ci xët mu njëkk luy quotidien ne kii di Pape Alé Niang dafa mel ne dafa ñëw RTS ngir saboté kër ga ci tànki delloo ñu gannaaw ci la Pape Alé Niang taxaw te duñu ko nangu duñu nangu mukk ku ñuy xañ loo xam ne suñu droit la ñu yàgg ko xeexi at ba teg ci loxo Mame Moussa Niang teg ci ne ci tabaski ren gi am na lu toll ci juróom-ñetti téeméeri yoo xam ne ngóor si di Pape Alé Niang a xañ seen avance tabaski mu ne bu dee day wàññi ak a yaxanal ak a sakkanal RTS lu tax laalu tub te moom Pape Alé Niang juróomi million lay fayee ko weeru nekk loolee nekk ci RTS moo nekk ci xët mu njëkk source wa bi dañuy nettali la fa xew ba dañu xamal ne travailleurs yi xultoo ñaxtu ci RTS nee dañuy dem ci inspection du travail kalaame ji fa bi directeur général bi Pape Alé jël jëm ci suspendre accord d'entreprise bi leen Racine Talla defaloon ñu def demi dem ci journal Le Témoin riiroo ci assemblée nationale ci diggante exécutif bi ak législatif bi diggante primature ak assemblée sañ-sañ ak mën-mënu mën a tas assemblée nationale bi fii situation bi toll dinañu ko def ci lettre jébbal ko président de la république moom it dana am juróomi fan ngir joxe ca xalaatam xalaatub Tafsir Thioye ci li xew ci assemblée nationale mi ngi ci journal point actu moom député libéral ba woon nee na bureau assemblée nationale dafa weesu fa ay mën-mënam ak sañ-sañam waroon a yem mbir mi ak fi ñu toll Tafsir Thioye nee na président de la république moo ci war a lii dëgg tey dëgg Tafsir nee na mooy premier war a dem defi déclaration politique générale am ci primature di fa premier ministre di fa nekk di Ousmane Sonko le quotidien nee nañu am na ne boo ca war a waxal ci primature moom mi fa tëral loolee di Ousmane Sonko Walf Quotidien xëy na di waxtaane ci xëtamu njëkk ni muy def bay teye ay militangam bokk na ci Jean-Luc Mélenchon mi mu invité woon ci réew mi ba dalalan ko ci université Cheikh Anta Diop bokk na ci showam ba woon ca Grand Théâtre bokk na ci dem ji mu demoon bërki démb ca Colobane ak ca Anse Bernal nañu mobilisation ak discours populaire mooy ngànnaay li koy dundal moom Ousmane Sonko fu mu dem mbooloo mi defum diraan dagg topp ko mu dëkkee yëkkate ay kàddu yu ñu koy mbambeeka bi ak juróom fukk ak juróom-ñeenti junni yu teg ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay candidat maanaam 159 487 candidats ñooy wut li jaasa baccalauréat ren ci réew mi. sumari point